tay nak lima ma video bi ma def sama yaay yi ñoo tax ma def ko ndax dama gis ni sama yaay yu bari dañu am ay gàllankoor yu bari bari bari ci seen wër gi yaram te moyen amuñu ko nañ leen sante suñu waajur yu jigéen yi nañ leen sante bu baaxa baax te gërëm leen tay video bi may indi tay man na wax ni sama waajur juru jigéen yi ñom ñoko waral ak sunu papa yi nga xamanteni yalla dogal nañu amé ay tawati tank yuy metti ak yaram wi ñoom moo ko tax a jóg dama bëgg na sama yaay yu bari yoo xamante ne ni dañ may bëgge sama jëmu ji xeebu ji nga xam ne tey bu ñu jaaxlee dañ may woo jafe-jafe bu ñu am dañ may woo di ma laaj ma nekk nag koo xamante ne nii maanaam suñu xam-xam ci waaye nag suñu yaay yi nga xamante ne yàlla dafa dogal ñu amee ay oom yi metti wala ñu dem hôpital xool ko ñu ne leen liquide bi fa nekk dafa jeex wala tànk yi di faral di sadd di fees ba pare di neew yi loolu moo ko tax a jóg tey vidéo bi looloo ko tax a jóg képp ku am sa yaay joo xamante ni yàlla dogal na mu lay jàmbat ay tànk wala mu lay jàmbat ay yaram wi ruux di metti déglul vidéo bi pour nga mën ko caa jëriñ ca loola nga ne ko ah yaay booy de am nañ benn waaj ji yoo xamante ni ku xeebu la ku ñu wax Serigne Modou Faye taalibe Cheikh Abdou Akim Mbacké joxe woon na benn secret bii bëgg naa nga def ko su ko defee mu xool ko incha dina la woowaat sant la gërëm la yow mi ko jox kon sama yaay bo xamanteni ni mu ngi suivre sama vidéo bi vidéo bi ne li ko tax yaram wi tang benen bay itam mooy tànk yoo xamante day faral di metti sunu wayjur yi nga xamanteni ne dañu am ay tank yoo leen di faral di seen sonal lool waa tànk yi bi japp ko ba mu dem ba mu jigi di ruux di metti ci su wala mi sadd di fess wala buñ doxé digënté bu gatt dañuy sonu di japp seen omi wala yu ni mel wala buñ doxé digënté bu gatt omi di metti wala tànk yi di metti ba dañuy togaat vidéo bi tay moko taxa jox a nak li ma leen indil mom lañuy wax reub reub kii mom yakarna bo demé ci sunu mbokk làkkat yi xam nañ ko ndax ñom rebu rebu lañ koy wax rebu rebu lañ koy wax ki mooy rëbb rëbb ma ngi giñ ci yalla ne gis ngeen garab yi bu ko nit ki xamé di ko wallahi alazim tawatu bari di nga takali ko mom benen bay tamit moy bo demé ci sunu mbokk kat dañ lay wax ne la manam Sugar bi ñom ci garab yi lañu jëfëndiko xancam lañu jëfëndiko pour sugar boko da jëfëndiko sugar du la japp man ngeen naan attaaya guddi ak bëccëg yàlla xam ne ne suukar kenn du la ne da nga am suukar doo doo ko dégg ci àddina xànc bi soo ko wutee da ci wut boole xànc baa ngi fi sa après naa leen ko naa su may defaat vidéo moom ngay jël nga boole ko ak la ngay attaaya da nga ci def ko ci attaaya ji soo ko dee def day gis ne day xonk moom moom bu yàbbee sax day xonk comme comme lay mel nga di ko boole attaaya di ko naan te weexul dafa daal dafa neex mais billaahi la ji suukar su fekk sa yaram da koy rocc ba mu set wecc kon loolu comme ñoom ñëwaguñ ci côté boobu na ñëwaat ci nañ ñëw lii rek leeral ko léegi boo jëlee euh, li nga joxal ne mooy reen bi muy reen mu rëb bi su ko defee mom nga jël gis sa takk bi ni ben tak bi ni soko ko dang ko jël nga raxas ko ba mu set xam nan ngay def da ngay wut 5 litres nga def ko ci bir daal di jël ndox mu tang sotti ko ci ba mu fees nga upp ko bayiko mu yendu ba ngoon bu ko defee day yàbbi su la nexé nga baxal ko bu la neexee nga def ko non mala wax rek su ko defee nga diko jël kaasu kay matin di soir bu nga defal ko way nag képp ku ci bëgg def traitement dangay dem nga wut ci lu mat maanaam juróomi takk nga jël ko boo ko def boo ko jëlee balaa maanaam benn takk bi rek soo kamee ba ba commencé ko naan day gis résultat yi changement yi commencé am leneen lu koy continuer dara di ko def yaram bi di la gën a bàyyi complètement tànk yi doon metti daan tàng di def lépp léppay dañ barki Seexul Xadim kii man dama ci faj ay nit nit day jógee ci man bu dikkee ci koy faj ba mu wér benn am naa ci ma ciy faj nag lii looloo ci gën a tuuti man barki Alxuraan li may faj lolo gëna tuti tuuti li ci rab euh, maanaam rub rub bi ma lu jëm ci walu rab sax dama ci dox li maanaam ci ma dama ko wax sax nit mënu lépp mënu ma barki alquran waye képp ko xamanteni te li ma ko wax ni yitteel nako essayé ko nga xol wala nga defal ko sa wayjur même bu fekkee du mag sax xalé la sax nako def mu xol numéro bi nak 77 la 295 67 39 li saxaar bi ñuy def 2000 lañ koy defé sen dongu la Serigne Modou Faye talibé Cheikh abdaye Mbacké jere ngeen def